ñu ñëwaat aussi ci paaleen voilà joxe dem ci femmes yi parce que ñun ñoo leen ko digoon nii le 2 janvier dina ñëwaat le 2 janvier tey ñu ñëwaat te ñëwaat bi ñu ñëwaat mooy may leen ay brouettes ay matériel de nettoiement composé lépp li nga xamante ni moo ci war a am loolu tey moo waral suñu suñu teewaay fii waaw. ñu gis ne saa yu nekk it booy amal ab génn da nga koy jagleel waa Paleen yëf yi day yem wala da koy yàllal. waaw bay ci sa wew tànk comme ni ma ko waxee fii moo tax ñu doon tey li ñu doon te gëm nañ ne ëllëg lañuy doon fii mooy tax moo tax ñu commencé fii fii nag duñ fi yem ndax fii rek du Mbàkke waaye mënoo ci ci ci li ñuy def aussi dañ koy teg ci coordination géographique. maanaam doo def mbir rek ngir da nga koo bëgg a def bien vrai que fii lañ dëkk fii la lépp commencé mais bu ñu xoolee ci architecture Mbàkke tey munoo wax dara te dugaloo ci paaleen moo tax ñu commencé fii beneen bi nag danañ dugg ci yeneen quartier yi dinañ dem Mbàkke Xewar dinañ dem Gaawaan danañ dem Mbóojeen seeti Adama Sila dinañ dem Daaru Salaam seeti Gora Kane danañ dem fépp fu Njakalaak seeti Abdoulaye lum ak ñoom Gora Seck et tout ça donc yooyu yëpp dinañ ci dem pour que lañuy mébét lañ ca mën ñu def ko waaye fii lañ commencé te fii aussi fiefu maam Cheikh Ibrahima Fall la fii la xalif général des Baye Fall nekk loolu rek jar na ñu ñu ñu commencé fi mm-hmm. euh, léegi ñu dégg dige yoo xam ne def nga ko nga ne fii ak weer bii dee di ñëwaat si beneen ndimbal boo xam ne da ngeen koy jagleel. waaw loolu partenariat la boo xamante ni fisale nañ ko démb ak partenaire qui habite à Thiès waroon na ñëw sax tey ci ndaje bi mais dafa am empêchement waaye dama ni fin janvier incha allah dinañ installé téeméeri puisard téeméeri tuurukaayu ndox. yoo xam ne seen jën yeeg yooyu yëpp tey bu ñu koy def service d'hygiène dootu leen alamaan téeméer dinañ ko dinañ ko taxawal te incha allah bu ci nekk juróomi at lay duré te gratuitement lañ leen koy jox population Paleen dinañ tànn téeméeri kër ci population Paleen pour jox leen ko loolu maa ko wax fii ci tele te dinaa ko def incha allah. waajaluñu dara lu dul bokk ci li nga xamante ni moom mooy intérêt Mbacké ñun lépp luy intérêt Mbacké ci lañ nekk. tey su ma nee ci ginnaaw doomi Mbàkke yi doomi Mbàkke yi bëri nañ ñun am nañ benn directeur général boo xamante ni c'est le DG Galaba kooku c'est un directeur général waroon nañ ko mën pourvoir am na ñeneen ñoo xamante ni bëri nañ fi fii bëri na ay cadre fii yu fi nekk Gora Kane a ngi fi Fallou Sylla a ngi fi Cheikh Mbacke Fall a ngi fi Khadim Sylla a ngi fi Cheikh Ibrahima Ngom a ngi fi bëri na ñoo xamante ni war nañ leen mën a promouvoir côté boobu laay waxee maintenant nag promotion boobu mooy Mbacke xool bu baax a baax a baax tànneef tànneef yi lan lay doon loolu kese lañ ko waxee. maire bi sama grand la mais c' est pas un bilan négatif mais damaa gisul bilan. Hmm. parce que man lépp looy def te boole woo ci paaleen lépp looy def tax jigéeni paaleen askanu paaleen dama ne lépp looy def te boole woo ci jigéeni paaleen ndawi paaleen man gis gisu gisuma sa bilan foofu laa ko xoole def nañ fi benn poste de santé inauguré ko mais ana matériel bi gars yi wane nañ ay image mais dem fa amul matériel te lépp looy def ngir te amul matériel amul utilisation bi ci war loolu amul sens te paaleen benn poste de santé attanu ko paaleen quartier bi deuxième quartier plus populaire de Mbacké benn poste de santé attanu ko dañu war am beneen affaire bu nga xamante ni yeneen support yu nga xamante ni loolu mën a am pour que paaleen développé loolu laa waxe ni ñun gisuñu bilan parce que man ku defalul paaleen gisuma sa bilan